asalaamaaleykum mbokk yi ak xarit yi nee leen saa ne na ko bëggee rek noonu lañ koy xel di defee ak yéen nu ma koy waxee rek ma defatu ne nag naa ne kenn dootu ko présenté ci musique sénégalaise ndax yaakaar naa ne su way di am moom dafa war a way ndax euh, daanaa dégg ñu naan looy faxas mu ruus dafa fekk bokk ci yow kii ma jaakaar lool kooku alaaj ñu ko jangay baayam euh, kon nee naa tey euh, su way di am rek dafa war a way su way amul moom sax dafa war a way ndax aar dafa bokk ci moom kii mooy aar ki nga xamante ne tey moom laa jaakaar lool muy Alpha Dieng nekk koo xamante ne ràññee nañ ko ci li nga xam ne moom moo di musique sénégalaise damay may def ba lu dul bàyyi ko mu daal di nuyoo ma daal dugg ak moom ci la nga xam ne moom moo di waxtaan bi alpha euh, àdduna yëpp ñu ngi lay seetaan àdduna yëpp ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi la nga daal nuyoo ñu dugg ci waxtaan bi ah salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum sénégal mu daan cee maa ngi leen di nuyu di am mbégte jàkkaarloog yéen comme ni ko suma frère waxee kontaan naa am naa mbégte géej naa génn nag nuyoo waaye tey foog ma jàkkaarloog àdduna ndax ñun yéen la ñu am foog ñu wax ak yéen ngeen xam ci lu ñu ne maa ngi nuyu ñëpp. voilà euh, Alpha tey fi may dugg ak yow dañuy dugg ci musique sénégalaise ndax euh, tey yaakaar naa ne euh, doone musique doone art te kenn du tudd kooku nga xam ne moom moo di suñu papa ji El Hadj Ndiouga ah, yow nga ñëw nekk ci boobu ba tey tamit yàqoo ci dara gis nga ko ba tax na dañoo toog benn moment gisatuñ la ci art bi nga xaw mel lu lu retiré wu la ma waral loolu. waaw loolu moom dinaa ci sawar parce que gars yi bëgg nañ di xam lan moo tax. li ko waral nag mooy dafa am benn moment euh, ma nekk ma yor suma groupe ma dem ak suma mag mbay jey sama groupe toog xaar ma jógewaat reprendre groupe bi Baobab Këfatima loolu nag moo gën a andi suma absence ci scène musicale parce que Baobab li muy tourner dafa bari dafay tourner lu bare bare bari du toog ci réew mi lu bari bu ma duggee ci projet album ba ne dama koy génn rek gars yi reprendre tournée yi donc loolu bokk na ci li gën a tax ma gëj a génne album et puis gën a gëj a génne lu bees te rek ma wax ko gars yi maa leen carrière bi mu ngi dox de c'est-à-dire dafa doxewul Sénégal ñu ngi ci bitim réew mais ñu ngi ñu ngi ñu ngi ci musique bi toujours donc loolu daal moo andi woon junior su ma gëj a génn pause bi mu jaaxal ñu bare bare bari parce que xale laa maa ngi toll ci way gis ñu ma donc may wax nit ñi ne leen maa ngi ci musique bi toujours dama ne woon côté bitim réew mais jamono yi maa ngi fii pour def suma carrière incha allah euh, ñu gisoon la nga bàyyi fi sa groupe dem am loo liggéey ñëwaat nag nga ko doon ko dundee ak sa groupe ndax ku ne xam na ne tey nekk groupe bam yàgg nga dem même bu dee benn deux jours trois jours nga bàyyi leen fi dafa metti waaw donc xawoon na am ay jaxasoo parce que xam nga ne musique sénégal gars yi duñu xaar kenn boo demee ñoom dañuy dem seet ci leen lu ñu def mais toujours samay parce que sama groupe lu jiitu sama groupe samay xarit lañ loolu moo andi samay frère ñoo ki ne samay xarit après ñu comprendre nañ ma demoon nañ benn moment nag ñu mer mais waxtaan waxtaan ma waxtaan ak ñoom ñu comprendre ma que ne vraiment musique moo demee noonu ñoom it léeg ma comprendre leen parce que léeg ñu bàyyi ma fi dem jouer ji ma dem jouer ji ak Baobab musique bi noonu lay demee mais ñun ñëpp ñu ngi ci biir bi ma ñëwaatee nag euh, jamono yi ma am benn projet album fii laa ko njëkk a waxee war na génn ak suma frère Ibou Ndour projet album boo xam ne variété la mhm. salsa lépp mu ngi ci biir Sénégal xam ne Alpha Dieng fa mu ne woon ba tey mu nga fa mais bu ma sañoon du demee noonu mais yàlla mooy dogal nit keneen la waroon demee da ngay ci donc ci man mais fi mu ngi di affaire ay waaw. voilà bu musique sénégalaise musique dafa yaatu te den nu ma koy nañ aar du ëmb day rek euh, kon euh, Alpha ak Salsa lan moo la gën a intégré Salsa waaw Salsa orchestre euh, orchestra Baobab ma de passage suma papa yoyu mm-hmm. ñom ci ñoom laa daanaa ko fowé nak parce que ñun suñu jamono étoile de Dakar jamono jamono Baobab ba nga dal gis malax Salsa ci ben album mm-hmm. ay 5 chanteurs ci ben groupe Qui ay chanteur salsero ñi ay chanteurs malax. lolu motax boy, xol suñu grand yi talent bi bi ñu am leen ko may variété ñu def man xamoon salsa mais li ma ko dëgg-dëgg nag mooy donc bi ma demee ak ñoom tournée ma gis salsa bi ni mu amee doole ci kaw pourquoi pas xale yi di def ba ci parce que musique dafa yaatu nga jàng lii jàng lii di bu bu fi doxul bii dox parce que salsa dafa am doole ci kaw tellement que bari na est yu jee mbalax fii Elle ci kaw salsa mm-hmm. waaw loolu may ouverture waaw voilà di la ko fàttali rek moo ngi ni Alpha Dieng la mooy ki nga xamante ni mën naa ne euh, ni ma ko waxee léegi doot ñu ko présenté ci musique sénégalaise ndax yéen a ngi koy gis euh, ci écran yi muy def li nga xamante ni moom la musique bi laaj euh, Alpha dañoo nekk ci jamono joo xamante ni tey actuellement gis nañu je peux que ne sa famille bon say rakk yaa ngi leen jiital bon ku ci mel ni Momo Dieng ku ci mel ni Pama Dieng Sabel ñoom moom itamit mu ngi ci biir ñu gis leen yéen ñëpp yéen ngi ci musique sénégalaise am na loo xamante ni tey xew yaa leen mag quoi donc naka nga leen di jiitalee en tant que ay rak parce que musique dégg naa ñu naan dafa fiir mënoo ko booleeg dara te ñoom actuellement ñu ngi sur la bonne voie naka nga leen di joxe ay conseils ba ñu tegu ci bonne voie. waaw ñooñu xam nga comme ni ma koy waxee rek li ma dal rek moo leen dal ñu judd ci métier mi seen papa doon ko def du ko nag sa papa way rek da nga war a way mais yàlla nattoo na leen ko ñoom it mu nekk seen deret bi mu jotee génn nañ mais lu jiitu ñuy def musique dama koy faral di wax nee naa xale yi seen yar. mën na leen sauver parce que yar nañ leen. musique bi métier la boo xam ne bari na tentation yi bari na bari na lu ci ne mais man am naa ci ñoom njort bu rafet parce que yar nañ leen avant ñuy dugg ci musique bi. donc ñu nekkandoo ki nag nekk benn famille buy way comme ni nga ko waxee musique ni mu fiiree ak benn famille boo xam ne dañuy way maase jamono ñi naan kii ñi naan kële ñoom am nañu euh, vraiment benn esprit de dépassement ñoom seen seen seen li ñu bokk mu ëpp doole musique bi ci ñoom. parce que noonu lañ leen yare man noonu laa leen yare fu ma toog ak ñoom laa leen wax ma leen da ngay toog kii naan Pama kii naan Momo kii naan Sabel kii naan Alpha mais loolu ça n'a rien à voir ak li ngeen bokk. Mm-hmm. fu ma toll tamit loolu laay ñaan sama papa li ma doon ñaan suma famille yàlla bu kenn dugg seen biir jaxase leen yàlla bu ñu gis seen bopp kenn ku ne parce que kenn ku ne am nga lu lu ne ci yow te newul ci sa morom. Mm-hmm. comme musique bi li muy demee kenn ku ne bul xeeb talent am na loo xam ne fooram la boo ko fa fekkee rek xam ne moom la ko yàlla may. kon kii kii day ñii dañuy bëgg kii ñii bëgg kale du ñàkk mais nañu jiital li xam ne moom lañu bokk muy benn deret bu àdduna yàgg yàgg yàgg yàgg ba musique bi dugg ci seen vie famille vie professionnelle la bu ñu ci jógee ñoom ñoom sax heureusement yàlla daf leen dimbali ay xarit lañ dañoo juboo dangay ngay gis bu Pape Malick xewee Pape Malick xewee moom moo depart ànd ak ñoom mëngoone sabel keneen ku xewle moroomam ñëw ñu bëggante yàlla na yàlla xeeb doole mu jëm kanam yàlla mu musal leen ci lépp loo xam ne day yàq famille mm-hmm. loolu rek laa leen di ñaanal di leen wax na ñu gën a euh, dal xam ne yëf yi carrière bu gudd bu yàgg la mm-hmm. seen papa presque soixante-dix ans la la la génne àdduna te dafa tournée ji dañ dem Londres mu ñëw feebar génne àdduna mm-hmm. kon du du carrière benn fan du carrière ñaari fan teey dal def ndànk avoir la tête sur les épaules yar bi ñu xam ci ñoom ñu téye ko bu leen ay tàccu dara yóbbu. waaw parce que nit ñi boo bëggee neex leen da ngay am yar. Mm-hmm. waaw bul yëg sa succès bu da sikse ko succès da nga koy liggéey ba pare sax wan ko ginnaaw ni ko sama mag mbay jee di waxee mu ne ma succès da nga koy liggéey ba pare démystifier ko mm-hmm. waaw àndal ak ña nga daan àndal nekkal yow mi nga doonoon toujours bu ko defee loolu mooy doon xorom si. <laughs> <laughs> voilà comme ni nga ko waxee am na solo trop am na solo macha allah. ba tax na damay euh, def benn transition cest à dafa am ci loo xamante ne dama ciy dugg mooy dañoo jëm ci da jëm sax laay wax ci bés bu mag a mag a mag muy le vingt avril nga teg loo xamante ni mën naa ne tey kenn xalaatul woon pour teg ko mooy lan sargal ki nga xamante moom moo di Alaaji Njugo jang mu nekk nag euh, mu nekk bés boo xamante ni pour man bés bu rëy rëy rëy la ndax dafa bokk ci euh, nu ma koy waxee mm, bon les monuments de la musique sénégalaise kon tey ñu bëggoon xam exactement bés bi lan le poussé ba nga ba nga bëgg teg bés boobu. waaw kontaan naa maa ngi door am mbégte nag si ñor laaj yi nga laaj yëpp neex na ma mais lii ñu jëm nii daf ma ñor parce que bés bi li ko indi mooy sama papa ci mujj dundam dafa bëggoon def les 50 ans de l'orchestre Baobab au Grand Théâtre ñu di ci waxtaan mu di ko dox yàlla dogal lii mu dogal ci moom. loolu rek doyul mais comme dafa newoon conseil municipal bu mair bu Bargny maire bi di jooy alaaj njugo ba tey nee na kii foog mu wutal ko bés boo xam ne bés bu tollu dimension am la bés national boo xam ne ñëpp dañ ko fàttaliku mu doon loo xam ne dafay continuer chaque année di ko def ci kàttanu yàlla jamono yële bi ma ko waxee ma ne ko am ah bàyyi mu am un ñu xool ma jógee voyage ñëw mu ne man day taxaw naa ci pour ngeen def date bi ma ne ko ah mu waaw ci laa woote grand théâtre ñu jox ma fa benn le treize ñu xool mu daje ak kasu rajab ñu ne def ko jege ku ne xam ne suñu digganteeg sëñ Fallou ñu jóge fa nañ ko yóbbu la vingt ba mais junior kii ñuy defal hommage ku jara defal hommage la ndax euh, man waxuma en tant que doom ak bàyyi ndax waxewu foofu chaque jour ma leen alaaj ñu dugg bu meloon neneen du ma toog fen di lu ma ko warul wax mais dinaa maandu ci moom samay wax kon du bari ci moom li may jur bu meloon neneen noo xam ne waru ko mel jikko bu ma boo xam ne neexul àdduna kon du ma ko tiitaroo duma tok toog fenn ba wax wax ju bari ci mom dina mandu ci mom limay jur yeb mais damay wax ci mom en tant que nit ak nit waxewu ma doom ak bay nit ku bax la won ko xamne wané na musicien dafa wara am yar dafa wara dal dafa wara nek exemple dafa wara nek model modèle la wané ba dem amoon l'islam bëggoon njaboot julit neewoon amon ak jàmm nag ñep li gëna am solo ko wax ben témoignage kérok bi mu génnee aduna ñep nenañ foko gis gis bëñam mu ubbil ñep bopam njabootam ak ñep la juron kooku la ñu bëgg defal événement bu mag le 20 avril fële ci Grand Théâtre événement bi nag ñi koy xëccoo dafa bari parce que Alaaji Ndiouga moo toll noonu ñëpp ko bokk ñëpp ko bokk sa papa la sama papa la papa yi ñëpp la mm-hmm. euh, le maire de Bargny Abu Abel Seck moo initié loolu ne ma Alfred naa ci def tous les moyens mm-hmm. mu doon bés boo xam ne incha allah ñu commencé ko sa papa muy continuer mm-hmm. orchestra baobab na ñoom ñoo moom bés bi Momo Dieng ak Pama ne ñoom ñoom ñoom moom bés bi Sénégal artistes yépp la ñu woo bés boobu dañu bëgg ma doon benn bés rek ku fa ñëw di nga fa dégg façon musique bu ne mhm. parce que Alaaji Ndiouga ci traditionnel la commencé door a rejoindre Baobab def salsa mhm. moderne lépp nit ko fa dégg incha allah ku fa ñëw daal bu soobee yàlla dégg sa xol dina tooy bu neexee yàlla. Mhm. ñan ak ñan ngay woo ci bés bi. xanaa di woo Sénégal yépp sama mbokk artistes yi ma maaseel jamono woo naa leen. ñi xam ne ñoom la maaseel jamono ak rakkam yi topp ci ñoom commençant par suñu papa suñu xarit le ministre conseil Youssou Ndour suñu papa Baba Maal barki dem rek laa jóge këram vraiment mu teral ma accepté parrainage am con Balago Seck ku ne xam ne ne alaaj njuga nijaayam la diwoo Omar Pène Ismaïla Lo digganteem ak alaaj njuga ñëpp xam nañ ko génération bi ci topp Assane Ndiaye ma pend sama cousin yooyu ñëpp ak musique Sénégal di woo suma doom Waly Seck Pape Diouf ku lim juum góor gi Ndiaye daal bu ma limee damay juum di jóob xale yi ñëpp nañu ñëw ñu sargal seen papa ndax du suñu papa seen papa la mm-hmm. bés bi nag jar na ko ñëpp la ñu woo ñëpp nu ñu daje fale ku ñëw morceau bi nga sentir nga dugg ci wax lu baax Sénégal yëg jëm kanam. loolu daal laay wax ñëpp ne leen bés bu mag a ngi nii boo xam ne président de la République lañ ko dara jàll ak soxnaam. ma Marème Faye Sall xam ne bi alaaj njugo tëddee feebar gis nañ li mu ci def mu génn àdduna mu ñëw mook borom këram la président Macky Sall taxawu ko taxaw bu rafet njaboot gi nag am ci ñoom cofeel ndax ku teral sa papa nga bëgg ko président Macky Sall ñu ngi koy woo ci bés bi diwoo suñu première dame bu baax bi ma dem Marème Faye Sall ñoom ñoom moom bés bi ak marraine yeeg parrain yépp Sénégal alaaji njugo ñëpp ko bokk. na ko ñëpp ñëw sargal fay ko borom. jërëjëf kon dañuy joxante rendez-vous le 20 avril. le 20 avril ci Grand ku yéex nag doo am foo toog parce que bargi ñu ngi naan Bambilor du leen fa jiitu te Tëngéej ne leen duñu fa jiitu mbaaw Sénégal yëpp ku ki ne da nga am ñeewante ci alaaji njugo. te ku ne xam na ne lébu day sot. waa bànni rek buñ nee bee bu nee bërit bés ba. dama ne la fi ñu toll ñu ngi naan ay eh, cinquante car biir bari ñi te cinquante car boobu xajul xajul xajul grand théâtre kon ku yéex doo am photo doo am photo xale yi commencé nañoo ñawlu léegi commencé nañoo préparé. kon jeex na jeex na. <laughs> kon rendez vous le 20. le 20 ah. acca acca lan ngay tëjee interview bi. waa xanaa rek mooy am mbégte dajeeg yow suma rak di gërëm site yi xam ne ñoo fi nekk média bi yépp di wax ne Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg jàmm rek moo ñu jik élection yi ñuy jëm ak lépp na ñëpp xam ne bu yooyu weesoo ay sénégalais ñu dañu bokk ndey bokk bàyyi bokk ay tariixa bokk diine bokk Sénégal avant dara di ñëw nañu suuxat jàmm jooju mu ëpp solo lu mu doon yàlla na jàmm yàgg Sénégal jërëjëf <laughs> voilà gis ngeen ko noonu Alpha Dieng la woon fii nga xamante ni moo di ci inforemi point comme mu fas yéene euh, sargal ki nga xamante ni moom moo di suñu papa Alaaji Ndiouga Dieng le 20 avril nekk nag bés bu mag nag euh, ñu leen ci wooyee ñëpp ñëpp ñëpp nag bëgg nañ ñëpp képp kuy sénégalais képp ku nekku sénégalais sax bëgg nañ nga jàpp si ndax bés bi da koo jar borom bés bi itam da koo jar xam nga di leen jox dig daje rek beneen ñoo nag incha allah fii rek lay xewee ci inforemi point com ba beneen allah jërë ngeen jëf